seen émission dawaamu sukkari da la njukkal Cheikhul Khadim ak seen bokkum taalibe bi ngeen miin lool seenub taalibe sax laa seen ndongo Moustapha Ndiaye moom Serigne Cheikh Ndiaye Abdou Razak mu Serigne Darou Assane di am mbégte lool tey di fas yéene waxtaane kenn ku Serigne Touba gi kennal ko ni mu waree ci jaam ñépp kan laa ciy dalal sama xarit sama rakk sëriñ Ibrahima Ndaw Serigne Touba mës naa toog ci njaareem ba mu yàgg mu woolu sëriñ Massamba Mbacke ne ko Massamba mu ne ko Mbacke Serigne bi ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko ëllëg yemal xiyaam su ma la wooyee man Ahmadou Bamba yàlla woo la koo ci wuy si sëriñ ma sàmma ne tekk ba mu yàgg mu ne ko mbàkke bu boobaa danaa bàyyi yàlla wuy si la sëriñ bi ne ko ma sàmba mu ne ko mbàkke mu ne ko ëllëg yëmal am su ma la woowee yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo la ana koo ci wuy si sëriñ ma sàmba ne ko mbàkke de bu boobaa damay bàyyi yonent bi wuy la ndax boo ko liggéeyatoon li nga ko liggéeyal tagg koo li nga ko tagg duma xam kan ay yonent bi sëriñ bi ne sëmm ba mu yàgg mu jël loxo bu tedd ba teg ko ci dënn bi ne ko Masamba sama jëmm ji ak sa jëmm ji lu la gënal sëñ Masamba ne tekk ba mu yàgg mu ne ko mas Mbàkke sama jëmm ji man sëriñ Masamba moo ma gënal sa jëmm ji foofu.